l'Agence régionale de développement ARD, en partenariat avec la commune de Rosbecchio et le Conseil communal de la jeunesse, compte installer le 1er juillet 2021 un bureau d'information pour l'emploi local. Ceci sera dédié à la jeunesse à travers le conseil communal de la jeunesse de la dite commune. Ce sera ainsi avec la participation de l'entreprise Mayeco Service. Le lancement de l'installation du bureau sera accompagné d'une foire de l'entrepreneuriat avec des panels et des partages d'expériences avec les autres structures d'emploi comme la BEJ, la DER, la Banque agricole, la mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat et d'autres services. Pour cela, toute la jeunesse est conviée à cette journée qui se tiendra à la grande salle de la Sayette. Agence régionale de développement ARD ànd ci ak commune bu Ross Béthio nar a amal nag bis boo xamante ne dañuy ci taxawal li nga xamante ni moom moo di bureau boo xamante ni dañ ciy jëmale wàllu xibaar yu jëm ci wàllu xëyu ndaw ñi loolee nag ñu nar ko amal 1er juillet 2021 foofee nga xamante ni moom moo di ci nar ko jaarale li nga xamante ni moom moo di ci conseil communal de la jeunesse ba waaye nag kii di maye ko service nar bokk ci waxtaan woowulee ñu ni nag lancement boobee dinañ ko boole ak li nga xamante ni moom moo di foire boo xamante ni day jëm rek ci wàllu entrepreneuriat mu ñu jaarale ko ci ay panel waaye nag ay jokkalante xalaat jëm nag ci wàllu li nga xamante ni moom moo ñu xëyu ndaw ñi loolu nag ñu nar ci fekkee nag ay structure yoo xamante ne danañ ca bokk mu doon ñu mel naka ANPEJ ñu mel na DER ñu mel na banque agricole ñu mel na mission locale pour l'emploi ak entrepreneuriat waaye nag ak it yeneen service ca loola nag ñu ciy woo ndaw ñi ngir rek ñu teew ca bu baax ñu nar ko amal nag foofee nga xamante ne moom moo di ci salle bu mag ba nekkee ci biir SAED